képp koo xam ne bëgg nañoo topp boo abonné ci seen bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité defoon doo jot ci réew mi yow xam nga ko am yow da ngaa yaakaar ne yow doon am malaat wàcc suñu kaw déedéet nit kese nit simple la nit kese la la fi ay xalaat nga yor ñun ay xalaat maa dégg mu man sama doom damaa bu ñu àtte ma ma xam fu dem ba muy dem di attaqué Barthélémy Dias dafa laa tàggu. voilà projet la nër ñu fay ko xaalis mu bàyyi jabaram bàyyi ay doomam bàyyi papaam dem taxaw si attaqué Barthélémy Dias mu attaqué Barthélémy Dias ñu rey ko est ba que yow ba muy dem di attaqué Barthélémy Dias laa tàggu. tàgguwul ak xaalis bi jëloon dem attaque Barthélémy Dias. Barthélémy Dias dañoo war day perte. te moom dañ ko boy yoon 5000 loolu nag dañoo bëgg a xamal nervi bi jël say engagement jëlal say responsabilité bu la ma gis toll fay vingt cinq mille wala cent nee la demal attaque bi bu ñu la rayee da ngay ndax dufu bu junne jàpp leen Macky Sall ma nga bàyyi doomu Amadou Sall mu nekk fii di taxawaalu ma nga France ma nga Amérique jox xaalis ne ko demal attaque dafa am nervi yéen ñu def leen ay nervi te yéen seen ndey dafa dafa baaxul seen seen ndey liggéeyul mooy fekk ab ab maanaam ñu la la yooy nervi fay la